merci beaucoup. Je peux me tromper. Hein. Oui, oui, oui, effectivement. Euh, c'est un débat c'est tout à fait normal. Mais aussi, bon, euh, c'était juste pour lever l'équivoque là. Mm -hmm. maanaam campus social bi. Mm. ak campus pédagogique bi. Mm euh, lien bi du foofu. du ci les travailleurs parce que rectorat bañ na ko dañuy gis ñaari façon wu PATS. parce que PATS yi nekk ci côté rectorat sur le campus pédagogique mën nañ di grève PATS yi nga xam ne nekkuñ ci campus euh, nekk ci campus social bi duñ grève. lan mooy PATS PATS yi c'est le personnel administratif technique et service. mooy maanaam liggéeykat yi. donc dafa am différence ñiy bale di raxas di foobee rek campus social bokkul ak ñiy bale di raxas di foobee rek campus pédagogique ci wàllum fonctionnement dañoo autonome amuñu lenn loo xam ne jaxase nañ leen administration bii mën na di dox bee du dox wala bee dox bii du dox bokkuñ dara euh, bu loolu weesoo aussi ñun nangu nañ ñu tijjil ñu campus pédagogique bi ñu dem jàngi sauver suñu année universitaire bi campus social bi tëj xam nga lu tax nous sommes 93 070 étudiants la capacité d'accueil du COUD ne dépasse pas 11 000 lits mais tey si surpeuplement bi moo tax presque dañuy dugg ci 30 mille étudiants yu fa dëkk yu fa dëkk donc la majorité des étudiants lekkeewuñ COUD dëkkuñu COUD fanaanuñ fa dëgg la mmh. loolu c'est un constat un fait réel qui mmh. donc tey jii nii bu ñu xoolee ci loolu ci suñu gis-gis te bi ñu déggee recteur Abdou Salam bi mu waxee aussi nee na ñoom yàgg nañoo tijji campus pédagogique campus social xaar ab diir soog a tijji loolu yàgg na dox te aussi c'est pas l'inverse quoi c'est le campus social qui suit le dictat du campus pédagogique boo xoolee campus pédagogique moo naan tëj naa le temps campus social soog a wax tijji naa campus pédagogique aussi tamit moo naan damay tijji campus social tijji donc ñoom bu ñu demee ba mënatuñoo topp décision campus pédagogique ñu nangu nañ nañ ñëw ñu sauver suñu année universitaire ñun ñu jàll jàll jàll ci leneen aussi euh, li ngay wax mooy le personnel dañ leen di masaw ci jafe-jafe yi nga xam ni daj nañ ko ci événement premier juin lu metti la parce que ñenn ñi seeni alal lañ yàq leneen li ci des ñu ko yàq tamit ñun ñëpp ko bokk mooy biisu université yi ñu taal ak ak ak yi ci jëm mais y toujours des mesures palliatives déjà ñun bañ leen toppee di wax ba léegi dégg nañ jënd na ñaari bus directeur moo ko wax am na yeneen ñaari bus yu war a ñëwaat mais état mi ngi fi ñun ñëpp bu ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo wax ak kilifa yi téye réew mi mais huit bus loolu dara ci état même bu fekkee ni Dakar dem dikk mi ngi fi mën na leen a ay bus pour personnel bi wala bu ñu demee ba loolu mënul nekk mën nañoo louer ay bus en attendant yeneen bis yu ñu commandé ñu agsi